ñu wax ñu mooy kan euh, bu ko defee ñu gën koo xam waaye itam euh, rafetlu li mu fi def gannaaw bañ ko xamee Sidya Ndiaye kon tey ngir waxtaanee ko dañuy tàmbali ak Mballo Dia Thiam euh, ku ne Mballo Dia Thiam sa xel day dem ci ànd gësam gi nga xam ne moo nekkoon kon Sidya président bi wala vice président bi ànd ak Mballo Dia Thiam ci liggéey boobu ñu ngi lay dalal di la nuyu bismillah ci dem ak tey waaw maa lay nuyu euh, Fatou Thiam Ngom di nuyu euh, si équipe ak ñi euh, nga xam ne ñu ngi déglu yëpp ci Rewmi FM di rafetlu rek jukki bi ngeen bëgg a jukki ci dundu Sidya Ndiaye di rafetlu aussi li tax ngeen tànn ko aussi pour wax ci moom loolu nekk na lu rëy si ñun ñun waa ànd gësëm ñun waa FGTS ba ak. ñëpp ñoo xam ne doon nañu seq ak euh, Sidya Ndiaye. Mm-hmm. ci kuréel yi ak yeneen kuréel yu demee yu mel noonu. Mm-hmm. ñu jël jaal mi mm-hmm. di di di leen ko jaal parce que ñu ñëpp ko donc jaal suñu bopp. leen ko jaal tamit parce que amoon na disponibilité mu amoon. ci yéen ak yenn média yëpp. bien sûr loolu laa doon bëgg a wax sax di jël suñu njaal ñun ñëpp réew mi FM di ko teg sa loxo ndax Sidya Ndiaye ku disponible loon la pour réew mi FM guddeeg bëccëg heure bu ñu ko woowee wax dëgg yàlla euh, dafay nekk à notre disposition loolu waral kon tey ñun itam ñu di ko delloo njukkal alors ngir tàmbali yow lu la booleeg Sidya Ndiaye. waaw euh, dafa nekk euh, syndicaliste. Euh, comme que nekk na syndicaliste euh, di yëngu ci collectivité locale yi te collectivité locale yi am benn pàcc bu nga xamee ni ay liggéeykatu santé la action sociale te ñun aussi SUTSAS ñu nekk syndicat unique des travailleurs de la santé et de l' action sociale te xam ngeen ni aussi dans la santé eh, dafa am ñu nga xam ni collectivité yi foofu la ñooñu di émarger maanaam ñoom ñu leen di recruter parce que li ñuy wax santé ak action sociale compétence transfert la maanaam nguur gi ci boppam dafa ñëw dénk ko gox yi ak goxaat yi ba tax na maire yi seen wàllu boobu tamit war nañu mën a tabax euh, ay structure ay infrastructure euh, yu nga xam ni mën nañ fay mën a fajoo wala mën nañ fa mën a teewloo ba tax na ñun comme que ñu gën a bari si ñun euh, ci état et structure yu état yi tabax ñoom ñu nekk ci collectivité locale yi te bokkuñu employeur moo tax xëy na suñu traitement bokkul ak suñu préoccupation bokkul moo tax syndicat boobu daal di sax Euh, nekk ci collectivité locale yi tudd SUDETEM maanaam syndicat unique et démocratique des travailleurs municipaux mais travailleurs municipaux yi ñeneen ñi dañoo émarger ci santé comme ni mu ko ñi nekk dans l'état civil mm-hmm. ñeneen ñi nekk dans les autres services ak yu mel noonu euh, na ñoom aussi ñi war a seen i xeex ah léegi nag euh, <clears throat> ci secteur bi ñu nekk muy muy santé xam ngeen ni SUTSAS moom yàgg yàgg na di si yëngu. Mhm. Euh, depuis mu juddoo ba léegi quatre-vingt-trois la commencé ay grève am ak ay xeexam parce que aussi Fatou Thiam Ngom maa ngi lay rappeler que sut SUTSAS bu mu juddoo am récépissé quatre-vingt-deux rek quatre-vingt-trois la commencé ay xeex. Mhm. parce que benn système indemnitaire amul woon liggéeykatu santé amul woon benn indemnité benn du benn la amoon. amul woon te seetlu nañu ni aussi am na syndicat bu fi nekkoon doon def participation responsable. mais depuis mille neuf cent cinquante huit laa la wax. Hmm. ci la syndicat santé gëj a grève ci taaw Mamadou Dia. te grève boobu amoon ñi nekkoon santé bañ leen dàqoon daal di wut ñeneen. Hmm. donc ñun SUTSAS ñoo commencé grève yi njëkk yi dans le système de santé. Hmm. les premières revendications yi concerné euh, le système indemnitaire muy indemnité de risque indemnité de suggestion indemnité d'itinéraire yooyu yëpp. ñoo ko fi njëkk a indi ba yóbbu médecin yi aussi à à spécial parce que ñoom tamit ci kuréel bi SUTSAS dafa nekk syndicat bu ëmb liggéeykatu euh, santé yëpp ak action sociale mm. mais li commencé ci technicien de surface bi ci suuf ba ci professeur agrégé bi moo taxoon ñoom Eva Marie Coll Seck ñoom docteur Guindo ñëpp donc yëngu bu baax ci biir syndicat bi. d'accord léegi ah. lu boole SUTSAS ak FGTS. waaw lu boole SUTSAS ak FGTS. mooy FGTS euh, <coughs> doon na euh, euh, du du du du SUTSAS ak FGTS la d'abord ak ak SUDETEM foofu lañ foofu njëkkee mm. ci lay mujjee ak FGTS mm. loolu yàggul ak FGTS mais SUTSAS si boppam <coughs> ak SUDETEM dañoo nekkoon nekk ay kuréel ku nekk ci xeex ci wàllu boppam mm. yàlla def na suñu congrès bi ñuy defoon en 2007 Euh, au King Fat Palace congrès boobu sax euh, ñu fàttali bu baax euh, Abdou Fall donc moom moo présidé woon congrès boobu le ci la yeneen syndicat santé yëpp daal di défilé ci kaw tribune bi daal di ñoom ci seen bopp li ñu bëgg mooy syndicat yi dajaloo ci benn plateforme d' unité d' action ci lañu créé li ñu naan la fédération des syndicats de la santé bokk nag li li xew at yi at weesu ñuy wax beneen fédération mais fédération des syndicats de la santé am na certificat de am na acte de naissance mais amul woon acte de décès parce que man mi maa doon président bi mu nekk une présidente tournante mais dañoo dawal commencé suñu ay grève ak yu mel noonu ba commencé am ay accord bu ko appliqué kuñ naan madame Safiatou Thiam ñu ngi ñu moo nekkoon ministre la santé bu mu ñëwee daal di jéem a fexe nu mu tase la la fédération ñooñu daal dem bàyyi xeex bi ànd ak ànd ak Safiatou Thiam ensuite Salif Faye moom moo desoon moo taxoon ñu tudd ñu ñu nekkoon comme que vous êtes euh, Salif Faye toog ñu ne leen comme que moom mu ne demul fenn ñu ne euh, à deux nous plusieurs donc comme que yow toog nga ne nga doo dem fenn. te d'accord ci yéen ñi def nañ ànd xeex ci lañ ko ne di xeex pourtant sur les thèmes euh, nekkoon na à part mais bokkul woon ci histoire yi bon dernier moment bi convergence ci sas sas bi Salif Faye daaf demee ci la ma ci la kii bind nu mu tëddi euh, ci la ma ki woo nu mu tëddi euh, dem si yàlla Sidya Ndiaye mbaalo man vraiment <coughs> fu mu nekk dañu am njàqare parce que affaire yi dematul ña ma àndaloon xeexuñu bàyyiwuñu te yow gis naa fan yi nga décroché cinq milliards pour waa JICA parce que JICA xam nga deux mille seize deux mille dix huit kii defoon euh, deux mille seize deux parce que kii moo ko seen accord euh, Eva Marie Coll mm. ñu toog ay weeri weeri weeri weeri fayeku ñu ñu sumb suñu grève Euh, madame Bampassi ñu koy nuyu moo doon ministre de la fonction publique bu mooy négociation yi gouvernement bi génne cinq milliards ñu jox leen ko seen arriéré de salaire yi day jaay non seulement damay rafetlu mais dama bëgg xam nan nga def ba def loolu ba am loolu man ko man bu ma nekkee mbër tamit damay bàkku bu ma bàkkoo du ma yëg ci kaw tribune bi damay wàcc ci géew bi hmm. ma nag naa la wàcc ci géew bi parce que ñi ma àndal wàccuñ si géew bi si ñu informé bi nañu leet ñu convoqué suñu kuréel yi daal di tabax li ñu naan conve du tal ñu naan euh, alliance ànd gësëm hmm. daal di wax nan lañ koy présider nan lay tourner prise de décision na muy demee loolu mooy alliance ànd gësëm pôle coréen lañ demoon hmm. donc en 2017 bi daal tabaxal ah, tabax ànd gësëm hmm. boobu nag ba suñ jonne yàlla tey 2017 ba léegi man ak Sidya Ndiaye wàcc ñu ci wax wàcc ñu ci def pour profit travailleurs yi ak suñu plateforme syndicale minimale te gis ngeen xeex nañu ci biir mille dix huit ba am suñu dix sept plan d' action hmm. boo fàttali ko seize plan d' action lañ defoon bu ñu bëggee def dix sept plan d' action la ñu président bi woo hmm. te gis ngeen accord yi ci am ay organisation des assises sur les urgences affaire statut du personnel des collectivités locales te toog nañu douze ans avec l'intersyndicale amuñu ci benn décret hmm. yooyu yëpp commence du wax ci bilan bi mais loolu yëpp nekk na lu nga xam ni eh, sumb nañ ko quelque temps après nag kilo la Covid bi ñëw bi Covid bi ñëwee tamit eh, eh, ralentirul suñu activité ñu nekk suñu ay séminaire ak suñu webinaire ak suñu déclaration. Hmm. bu ñaax nit ñi ci loolu ci la ñu nekk nag ba fan yi passé donc la génn àddina. Hmm. ah bon mi génn àddina nag foofu laay indi affaire FGTS parce que moom nekkoon na secrétaire général du SUDETM. ba pare nekk président intersyndical des collectivités locales maanaam syndicat yi nekk collectivités locales yi nekk yeneen centrales yi. Mm-hmm. moom moo nekkoon seen président moom Sidya Ndiaye. Mm-hmm. bon depuis nag nekk aussi euh, secrétaire général bu fédération générale des travailleurs de la santé maanaam central syndicale. Mm-hmm. bu nga xam ne ëmb na SUDTM bu mu yor. mais ëmb na aussi ay travailleurs université mm-hmm. ëmb ay travailleurs yu nekk Dangote mm. ak travailleurs yu nga xam ne yu ngi nekk euh, fii euh, am na ñu nekk euh, grand domaine du Sénégal ñenn ñu ngi nekk industrie chimique ICS la ñu CSS la ñu nekk mm. compagnie sucrière sénégalaise ak yeneen gox-goxaan même dans l' alimentaire ak yu me noonu mm. maanaam am près du nord vingtaine yoo xam ne ni ñoo nekk ci FGTS donc FGTS central syndicale la comme UNSAS ak ak UCNTS bi ci kaw euh, demoon na élection nag amul woon place bi mu soxloon cinquième place la nekkoon <coughs> mais ba tey nekk na une place respectable moo tax gouvernement bi bu weesoo centrale syndicale yi amoon dix pour cent moom dañ ko joxoon gëddëm moo tax ba premier mai comme que loolu danañ ci agsi mhm. donc bu ñu nekkee ci FGTS bi ànd gësëm nekk fa juróom ak benn at di fa xeex amee résultat yu travailleurs yi teg seen bët ak ñëpp teg seen bët te yeneen central syndicale yi su ñu toogoon tooguñu fees ci seen place ci la Syria daal di def appel sur sas ni ko nag yéen yéen ngi ci centrale am na yeneen centrale yu fi nekk mais ñu suñu xeex yi centrale syndicale yi jàppuñu ci defuñu ci li ñu war a te ñun presque am nañu niveau central parce que ñëpp ñu ngi considéré comme central syndical. Mhm. il faut que ñu xoolaat suñu bopp. léegi nag man dama leen di ñaan yéen SUTSAS comme que def nañu liggéey bu rafet boobu ngeen ñëw fii FGTS ñu bokk benn centrale bi FGTS wala central boobu ñu ubbi ko ci ak ñeneen pour que fi ñu war a taxawal travailleurs yi au plan national mm-hmm. ñu taxawal ko parce que nag syndicat yi dinañu tabax taxaw au plan national mm-hmm. parce que ku ci nekk danga nga am ay revendication mais dañ naa revendication sectorielle la mm-hmm. mais dafa am revendication nekk ci kaw lu mel ni loyer lu mel ni ay pouvoir d'achat lu mel ni impôt ak ay convention collective yu ñu war a présenter gouvernement ak yooyu loolu centrale syndicale yi mooy seen cër mais syndicat de base bi mu mën mooy revendication yu ko soxal loolu moo waral nag central am syndicat de base am waaye nag central mun am te syndicat de base amul. Mhm. waaye nag central aussi bu amee dafa war a lëkkale xeexu syndicat de base yi. Mhm. donc jël ko en charge. lool nag vide boobu nag la bu bañ a bëggoon combler. Mhm. moo tax mu wooñu pour ñu ñëw. ñun tam suñu kuréel yi dajaloo ñu ànd daal di ñëw FGTSB ñu agsi mu ne nag ni ngeen toll ak xeex bi ngeen def yëpp yow Mballo Dia Thiam ñun suñu kuréel bii ñun ñëpp ñoo dajaloo ñoom ñëpp ñoo dajaloo pour nga ñëw ci suñu centrale bi mm-hmm. ba nga ñëwee aussi sa gëdd lañ la ko jox mooy yaay topp ci man loolu mooy ñu def ko benn résolution mm-hmm. loolu moo tax ma nekk euh, secrétaire général SUTSAS nekk secrétaire général adjoint de la FGTSB d'accord ci gàttal nag loolu moo taxoon premier mais mu ni ma ñëw nga yow yaa yóbbu kayit de doléance bi mm-hmm. parce que dama jagadi mais mu ma jagadiwul woon sax yaa yóbbu kayit bi le Genève mm-hmm. aussi ñëw conférence internationale du travail ñëw mu ni ma léegi yow yaay dem foofu toogal ma fa euh, donc représenté ma fa comme ma dem comme ñoomin ma dem ak ñoomin bureau yaa fay mm-hmm. dem ci laa dem par yàlla nag avant muy dem may dem euh, feebaroon na feebar bi moom yàgg na ci moom mais dafa gënoon compliqué malgré tout dafa mel daal dafa it dafa ma yebal Genève. pour que ma bañ a fekkee eh, dese fi. sa ginnaaw la la la wuy jee boromam alors 2017 euh, ba 2023 nga ànd ak Sidya Ndiaye lan nga ñu mën a wax ci nit ki maintenant. bon nit ki euh, d'abord euh, jàmbaar la parce que jàmbaar. mooy fu dara nekkul wala fu jafe nga jëm fa samp dara le fait que mu taxawal syndicat ci biir collectivité locale yi wane ni loolu njàmbaar la wane ni moom lijjantiwul boppam ñeneen la lijjanti parce que si Sidya Ndiaye munoon parce que cadre la EBAD la génnee da doon toog bay jàngale euh, am na ay maîtrise yu mel ñaari maîtrise am na ko ci communication ak yeneen ak yeneen ba tax na moom ci boppam bu doon moom cote la munoon na toog vivre tranquillement bokk ci cadre yi mais deful loolu dafa suufeel boppam ba ci suuf daal di ngardaajoo syndicat wu collectivité territoriale parce que euh, euh, parce que collectivité personne collectivité locale yi dañoo war a am statut euh, statut bi maanaam mu nekk une fonction publique locale comme ñu wax une fonction publique territoriale parce que am na une fonction publique d'État parce que agent mairie da ngay xool bu ñu la recruté ci mairie bi Ngor fu mu nekk nii doo mun a dem sax dem mairie Yoff affectation wala mairie Cambérène parce que mairie bi la recruter foofu ngay dundee foofu ngay nekk ba génn ba nga dem à la retraite wala ba nga génn àddina donc amuloo mobilité ensuite amuloo couverture médicale comme fonctionnaire boo xam am na imputation budgétaire ay ay lettre de garantie ak yu mel yenn saa yi salaire yi taxaw wala du taxaw même retraite bi aussi sa pose problème ba tax nag fonction publique boobu moom lañ doon xeex ñoom douze taxawul mais bu ñu àndee fonction publique boobu ñu ngi koy taxawal fu mu nekk nii loolu nekk na esprit de sacrifice mais à part njàmbaar googule Sidya Ndiaye eh, dafa nekk un homme euh, un euh, parce que dafa bëgg a partager day partager ay idem eh, même xeex yi sax da koy partager ba tax na loolu tam dafa am solo mais Sidya Ndiaye aussi dafa fonk nit parce dafa respecté ñëpp mais très aussi mu am fulam ak faydam mm-hmm. am fit bu nga xam ne xele amul kenn ku ku fi ëppale bu dee fit rek moom non te dafa sañ wax c'est-à-dire li mu bëgg a wax dina ko wax mais dina ko teg ci yoon ci anam yu ko war ko war a teg mm-hmm. ba tax na aussi loolu fa tax na liggéeykat yi de manière générale ñu respecté ko mm-hmm. même syndicat bu fekkee néewoon na doole par rapport ak yenn centrale syndicale yi mais kàddoom dana jog fu nga xam ne ñeneen ñi duñ ko fu jóg place am aussi fees na ko mm-hmm. ba tax na nag ñu fees suñu place ñun à And te cax bi mu ñu cax mooy li ma bëggoon mooy ñu féete ñëpp kanam wala ñu bokk ci ñu féete kanam pour que liggéeykat yi gën a mën a tekki loolu mooy ñun mooy suñu challenge comme koy war a waxee mooy li may naan cax mooy loolu moo nekkoon euh, kéem bëgg-bëggam te incha allah dinañ ci bay suñu waar Sidya Ndiaye aussi nekk na koo xam ni ku gaaw a jooy la ngeen ko gis noonu. Hmm. ak li mu tàng yëpp. noonu la gaaw a jooy d'ailleurs xëy na Cisco dana la ci wax lenn euh, bu gisee nit ko nga xam ni mënul ko dara mën na mën na loolu rek mën na ko jooyloo moom. Hmm. te Sidya Ndiaye moo xam la leen aussi Fatou Thiam gis nga siège FGTS bi. Hmm. bu nekkee ci kaw bureau hmm. jaaykatu banaana jaaykatu orange ñoom ñu may dégg jaaykatu jën amul kenn dañuy ñëw yéeg ba ci kaw moom ñu li mu jënd sax soxla ko mais day jéem a fexe ba li mu am mu partagé ak ñoom day jënd yàpp jënd jën misaala yenn saa sax siège bi day am xet ak yooyu yëpp su ñëwee mu ne gaañu mi ngi wala mu ne chauffeur bi wàccal nga yóbbu ko bu demee kër gi aussi même kër ga këram bu amee jën am yàpp am yëpp du tere lu mu romb mu jënd ci suuf aussi même bu toogoon ci suuf di waxtaan mhm. képp ku ñëw jaaykatu gerte jaaykatu képp ku ñëw mu jënd mhm. moom daal bëggul daal nit ki yor dara te mu yor dara te te du ko jox en contrepartie mhm. pour wàññil ko coono loolu mooy loolu daal nekk na man nag eh, eh, xam naa aussi ku gore la. Mm. Eh, maanaam moom tamit li tax ñoom ñëpp nekk seen centrale syndicale nekk seen biir diggante ay ñaar fukki at wala lu topp ay fanweeri at ñoom ñu ne yow li ñu gis ci yow loolu gis ci mbaalo moom tamit mu ne ma kaay sama wet parce que bëggoon na xëy na li mu am te bu manqué ñeneen ñi man mu mottali ko parce que man moom dañ doon mottali konte mm. donc ba tax daal sama xarit vraiment dem na. Euh, suma wéeruwaay aussi dem na comme ni ma nekkoon wéeruwaay. Mm-hmm. Euh, yal na ko yàlla dolli yërmande parce que am na yaakaar am nañ yaakaar ci moom. Mm-hmm. waaw loolu daal la xam naa daal mun naa ko jàpp ci Sidya Ndiaye. mais lan moo la gën a marqué ban ban ban xew-xew ngeen dund euh, boo xam ni daal marqué na la trop ci Sidya Ndiaye. oh donc li ñu marqué bari na parce que déjà biñ commencé di di nit ñi di di di di fayeku sax même si affaire prime Covid yi ak yu mel noonu mais lu mu njëkk wax mais naan mais mais dan moo tax ñun ñëpp di laal liggéeykatu santé duñu laal pourquoi léegi ñu secteur bi ñu am ñeen ñoo xam ñoo féete kaw ñoom la ñuy jox ñi féete suuf mais ñun danañu mm-hmm. laal wala duñu laal <laughs> gars yi ne effectivement ñun suñu dañu war a laal loolu moo ne moom son son cri de cœur son leitmotiv ensuite mm-hmm. <laughs> maintenant pourquoi ñeneen ñi li ñu war laal yëpp ñoom ñu koy ñoom ñu koy jël féetewoo ko il faut ñu goxi ko moo taxoon ñu mu naan ay opération gox yi gis nga léegi parce que tamit bëgg na li ñëpp am ñëpp séddoo ko mm-hmm. <laughs> bon si yaajaay aussi collectivité locale yi biñ ci nekkee sumb ci suñu xeex amul fu ñu fu ñu fu ñu fu ñu fu ñu fu ñu fu ñu àndul mm-hmm. pour que statut boobu taxaw a ah, ba tax na eh, buñ naan camarades yi am na ñoo xam ne xel ni eh, dañoo bëgg a nekk si ñun ba pare def leneen wala wala wala amuñu benn eh, maanaam discipline de groupe wala amuñu benn loyauté syndicat bi lu mu doon wax mënuma SG ñii bu leen toppatoo man benn nandite moo ma gënal camion ngaaka mm. parce que camion ngaaka benn nandite boo koy dawal mm-hmm. ku ci nekk na dem fu la neex ñun li ñu gëm ci la ñu nekk ci loolu ñu wéy mm-hmm. je pense que loolu aussi dafa nekk ay mandat yu rëy mm-hmm. parce que ay influence yooyu tax ko jóg moom dëgg bu mu nekk fa lay samp tànkam ba tax na aussi ñoom tamit kenn yóbbu ko dans la administration parce que du toog kenn leen lijjantil ma lii wala nangam nangam ba tax na témoignage yooyu yëpp man sama ginnaaw wax nañ ko muy euh, du Lamine Talla wax na ci euh, ñoom Ablaye Daouda Diallo CS wax na ci même bërki démb rek bi mu waxtaan ak docteur Anta Sané bu nekk conseil économique social nek secrétaire général bi mhm. nee na danaan sonn da ngay ñëw sax di apat mais day day bëgg ñëw di di liggéey si mhm. donc session bi c'est vrai mu ah man dal tant que maa man koy mën war a def dinaa ko def mhm. même su ko ñi ko gën a jege ne Sidia noppaloo mu ne bu bu leen ma ko waxati ah. Hmm. waaw loolu nag def naa loolu moo ko mënoon téye. Euh, mental yi comme ni nga ko waxee il marchait au mental. Hmm. moo tax ma ko doon wax champion da ngay jéem a seetaat aussi mbir yi parce que ni ñu ko bëggee no xëy du war a demee noonu. Hmm. donc mais moom euh, li ma koy wax ci français il n'a vécu que pour les autres. Sidia dundam yëpp da ko consacré ñeneen. ci lalu hôpitalam xëy na mooy dernier souvenir am veille premier mai munoon na ni man sama sonn sam bopp laatal mm-hmm. mais foofu la joxe ay institution wax leen nañu génne xaalis ñoom Cisco daal dem six cent ñu ne six cent personnes war nañu ñëw Talibou Dabo mu ne six cent plat six cent canette six cent ndox liggéenti leen loolu nit ñi daal fet seen fet mm-hmm. pourtant fu mu nekk mi ngi new situation yu métti parce que aussi am na loo xam ne mun ñu ko parce que en dehors de li mu amoon li mu tumuranki woon aussi ci dernier moment amoon na fracture ñu waroon ko opérer mm. mais ci ci circonstances yooyu la demee te loolu vraiment bett na lool lool lool mm-hmm. na ko boppam te mm-hmm. terewul ñeneen ñi la doon xalaatal di xalaat nan la ñu élection yi gars yi doon def ay euh, compagnie supérieure ak yooyu yëpp mm-hmm. terewul mu yónni foofu ay mission te boobu daa mi ngi tëdd ci lalu hôpital principal mënul sax jóg mënul sax laa la wax waaw parce que tànk ko te tànk takkoon noonu te pourtant fa mu nekk di lijjanti mbir yi ba noonu la génn àddina hmm. waaw jabar yi nag nee na ma aussi avant muy dem aussi sama tur rek la doon wax ndeysaan sama tur rek la doon wax wax ko la rek ñu seq loolu aussi hmm. nekk na lu ma lu ma marqué hmm. parce que dañoo wax lu ma marqué te wax ma loolu effectivement waaw ah, léegi nag euh, tamit euh, gis nga Fatiam ñun dañoo nekk ñi nga xam ne ku ñu defal lu baax ñu wax ko dëgg la système bi ku ci def luñ ci def lu baax ñu wax ko ku ci def safin ba tamit ñu wax ko tax na na gis nga premier mai. Hmm. bi may déposé cahier de doléance bi moom mu ni waxal ma lii ma président Macky Sall excellence Macky Sall. Hmm. nekk na tamit li nga xam ne du ma ko may dara yëpp tamit terewul nekk na suma xarit. Hmm. bi mu après discours bii la ma président bi ni mais Sidia man quoi Sidia de fu mu nekk gën jagati mu ne mun a ko évacuer man ko ci yow la des. suba teel le la le deux mai kii ministre Mamour Saleh woo ma. Hmm. ni ma président laaj bi nee na li ko waxoon dem ci Sidia moom la bëgg ñu mottali ko. Hmm. nee na naa la woo woo général Dieng ñu fexe ba Sidia ñu jëlee ko fu mu nekk ñu indi ko principal bu soxlaa mu jëm bitim réew hmm. ci loolu laa lañ def yóbbu ko euh, principal. Ah, boobu mi ngi woon këram wala feneen la nekkoon. këram la nekkoon. parce que parce que parce que laawee xam nga émission la nekkoon mooy si militaire yi. dañ fa def ay dialyse parce que à un moment donné yaram bi dafa gënoon sutante bi ñu ko indee kër ga nag la la veille du premier mai donc la amoon fracture boobule léegi nag si boppam ñu waroon ko ñu lam laam-laame ndax fracture la wala lu doon lu leneen parce que même premier ministre aussi waxoon na ni bu fekkee dañ ko war a évacuer dañu toppatoo dossier médical mm-hmm. loolu yëpp il faut que lekk médecin yi wax yu indication pour ñu war ko mën a évacuer mm-hmm. loolu aussi mën naa ko ci dolli mm-hmm. eh, ba tax na nag euh, la veille du premier mai la amoon loolu la premier mai bi ma ko waxee président de la république le lendemain deux mai ci la ñu ma municipal professeur Bey ñu ñëw jël si ko këram yóbbu ko principal defal ko ay rajo yëpp yóbbu ko salle VIP gore foofu ci kaw di ko fa toppatoo di xaar mu stabiliser pour ñu opérer ko. Hmm. ci nag loolu moo ci moment yi nag le yaram bi daal mënatul nangu nangatul dara nagam finalement noonu la ko yàlla génne àddina. mais hmm. daal loolu la demee donc di di di profiter di wax ñooñu ñëpp daal bu doon seen sago woon kon dina hmm. fi des. parce que comme loolu fi di wax. na fi na ci àq waaw. parce ci waa àqam Mamadou wax na ci àqam ak aussi même suñu motion bi eh, en 2018 aussi xeex bi lu mu tar tartal yëpp Abdoulaye Diouf Sarr ah yóbbuwoon na ko fi Maroc pour mu defi ay traitement yooyu mhm. te docteur Cheikh Tako Diop moo si jàppoon aussi mhm. donc loolu yëpp mënuñu ko ñàkk wax parce que aussi mhm. eh, def nañ ko parce que état aussi mooy suñu employeur collectivité locale yi aussi lépp luñ ci mënoon def nañ ko même Barthélémy Dias fan di ñëw fan yi aussi jaar na mais aussi am na lu mu aussi pour gën a jàppale njaboot ci mm. loolu aussi euh, mën nañ ko wax parce que aussi mairie Dakar la nekkoon ba retraité mm. yor archive yi ak yooyu communication mm-hmm. kon euh, bu fekkente ni amul loo ci bëgg a dolli rek lu ñu xamul ci Sidia euh, xam naa ne dañuy yem fii ak yow ci waxtaan wi euh, jublu woon ci delloo ko njukkal mais aussi gën ko xamale ak ñi nga xam ne yàgg nañ ko gis peut-être umpale ci moom lu bari ndax moom dundam yëpp ni ñu ko waxee daf ko tënk ci lutte syndicale xeexal ñeneen ñi ba yenn saay mu daan fàtte boppam et mun nañu confirmer li nga wax aussi que ni da daan fàtte boppam parce que yàgg nañ ko fi wow mu nekk sax ci séance de dialyse mais bu paree dafay rappeler wax li ñu ko doon doyee lu yombul bu doon keneen na danaan man naatal sama bopp mais wax dëgg yàlla ku yàgg sacrifié wu la aussi bien pour les syndicalistes que pour la presse parce que daan na amee métit euh, teewul muy wax ak ñun guddeeg bëccëg nag ñu ngi lay gërëm Mballo Dia Thiam waaw jaajëf ba day maa lay gërëm di la sant di ñaan yàlla aussi yàlla gën a barkeel seen liggéey amiin gën a jëmal seen taxawaay aussi ah, yàlla mi nga xam ne dara tawu ko te moom moo moom moo soxla te bu soxlaa ñëpp àtte euh, ci yërmandeem moom àtte ko si ci xolam bu rafet bañ ko àcce bañ ko àcce ci leneen waaw parce que yàlla moo xam nit moom matul ko. Mm-hmm. jërëjëf jërëjëf Malo Dia Thiam moom la ñu doon dalal kon ci seede yi ñu doon taataan ci euh, Sidiya Ndiaye di syndicaliste jiite woon FGTS Malo Dia Thiam mi euh, nekk secretaire général adjoint om ñu àndoon itam ci alliance And Gueusseum ñu koy gërëm bu baax a baax. kon ñu wéyal waxtaan wi ak euh, Moussa Sissokho moom itam mu nekkoon ak Sidiya Ndiaye ci SUDTM mu nekk syndicat beneen. boo xam ne itam euh, Sidiya Ndiaye moo ko jiite woon euh, mu jëflante ak moom lu bari ñàkkul fekkee ndoorteelam si si si wàllu syndicalisme ñu ngi lay nuyu sëñ bi si Cissokho di la dalal jàmm ci démb ak tay bi ñuy delloowee njukkal euh, seen àndandoo ba woon Sidiya Ndiaye. ñu ngi lay ñu ngi lay jaajëfal soxna si yéen tamit di leen sant di leen gërëm. Mm. waaw bon comme ni nga ko waxee rek. Sidya Ndiaye euh, bala muy créer FGTS dafa jëkkoon créer benn syndicat professionnel bu turon syndicat unique et démocratique des travailleurs municipaux hmm. syndicat boobu ni nga ko samp vers les années quatre-vingt-six boobu année yooyu la Sidya ñëw euh, à la ville de Dakar hmm. man jiite war naa ko fa lu mot euh, ay juróomi at bu mu ñëwee ma ne ko ah comme que dañu doon bokk lakk bu ñu doon lakk moom man bambara la moom soose la ma koy tooñ hmm. xam nga dañuy kalante ma ne ko doo ñëw ñu créé fii syndicat mu may ree quoi mu naan ma ay eh, syndicat boobu sax mu naan ma eh si syndicat yooyu man daf may kii ma ne parce que y' a qu'un seul syndicat ici la à, au niveau des collectivités locales c' la CNTS. que dirigeait notre regretté président Assane Diop à l'époque mm-hmm. ma ne ko ñëwul ñu mu ne ma waaw. après ñu commencé def boobu temps moom c'était le chef de la division des archives et de la documentation de la ville de Dakar. d'accord mu ne bureau am nekkoon au grenier. pour ñu xam hôtel de ville grenier moo nekkoon ci kaw mooy dernier étage bi. foofu la bureau am nekkoon parce que bu mu génnee EBAT euh, il a fait bon boo buggee tamit mën naa la wax parce que Sidia. oui mi ngi mi ngi juddu le 3 septembre 1957 à Sédhiou. d'accord il est le Pakao il est issu d'une Sa maman s'appelle Fatou Tamba. il est il est né ak il a fait son cycle primaire tout tout son cycle primaire mi ngi ko defee à Sédhiou à l'école 2. école boobu mu nekkoon. Hmm. son oncle Seydou euh, Tamba. Mm -hmm. c'était le directeur de l'école 2 de, de hmm. et puis moom ak yaay moom ak yaay bokk ndey ak il fut même maire à à Sédhiou son oncle la nekkoon na maire à Sédhiou. waaw bu mu jógee foofu nag si la dem euh, Ziguinchor. Hmm. def euh, son cycle secondaire. Mm. de la sixième à la terminal mm. bu mu foofu la defee sixième terminale mais bu mu nekkee Ziguinchor dafa nekkoon benn kër cousin am boo xam ne mi ngi turoon Seyni Ndaw. Mm. Euh, au quartier Boucotte pour que ceux qui connaissent Ziguinchor. foofu la foofu la defee toute sa son cycle secondaire sixième ba kii. après le bac bu mu amee bac si la ñëw à l'université de Dakar. il s'est inscrit euh, au niveau de l'EBAT mu génnee EBAT. Après, il a fait une spécialisation en ingénierie documentaire. si la ko Mamadou Diop recruté yobu ko mu def son troisième cycle à Bordeaux. mu ñëwee nag Dakar après mu ñëw. mais nit koo xam ne. Mhm. yàlla def ko bindool mu nekkoon un homme reconnaissant parce que gis nga bu mu jógee en Europe avec son son diplôme là vu son cursus scolaire. ak mhm. yëpp. Mhm. Euh, les grandes sociétés de la place man mun na xam dara. Hmm. dañ ko doon sol sollicité ay Sénélec ay Sonatel ak yu demee noonu. man à l'époque sax maa ngi ko doon tooñ naan ko doo dem mais fii a rien y a pas d'argent mu ne ma non Moussa. Hmm. man balaa sax la ma doon wooyee naan ma balaa non je le ferai jamais. mu ne ma man par devoir de reconnaissance je vais parce que man Mamadou Diop boo ko dimbale woon bu ma dimbali woon man mu ne je ne le ferai jamais hmm. bu ma jógee bu ma jógee ville de Dakar c'est comme hmm. ça qu'il est resté à la ville de Dakar hmm. kon amoon na kóllëre alors bi nga koy wax ngeen taxawal syndicat finalement mujjee ngeen ko def ñu def syndicat bi bu ñu defee syndicat bi ndeysaan ji nga yàlla lu muy def tey am na ñoo xam ne ni ngi si récépissé syndicat bi muy moom Sidia Ndiaye parce que à l'époque bu ñu ñëwee daf ma ne ma ne mu ne bon rapidement il faut qu'on cherche un récépissé de reconnaissance du syndicat hmm. ma ne ko xam nga lan la ñuy def on va voir des personnes disponibles qui ont le certificat de nationalité parce qu'il fallait avoir le certificat nationalité pour déposer mu ne ma waaw ma ne ko yow est-ce que tu mu ne ma nag yow ma ne ko no man sama boss parewul on va perdre du temps parce que hmm. ça va prendre du temps hmm. léegi xaaral nii laaj kenn mu mu ne ma moom am na certificat de nationalité disponible na il y avait un El Hadj Idrissa Sène yal na yàlla yërëm ko xare ko àjjana moom tamit génn na àdduna ça fait deux ans ñu mm. ngi dëkkoon Médina ñu ko doon wax Assène mm. c'était un agent de la perception municipale El Hadj Idrissa Sène la tudd mm. ñu jël kooku mu ne moom disponible na ak Aminata Ndiaye beneen secrétaire ndeysaan moom tamit Sicap la dëkkoon nekon hôtel de ville génn na àdduna ça des années ñoom ñett ñooñu ñoo jël récépissé bi boobu man ak moom ak Sidia. Mm-hmm. ak ñooñu may wax ni. Mm-hmm. ñu ñoo créé ak moom ñoom Mamadou Lamine Souané. Mm-hmm. mi ngi dem ak uh, Oumy ay Sofietou Ndiaye. li nga créé syndicat bi si bureau Sidia si kaw. et créé boobu. yaa ngi noonu la syndicat boobu juddoo. par la suite nag ñu am ay batailles ñu mëne. parce que dafa amoon benn année du temps de Thiaw Cissé Doucouré. dafa amoon benn prime xam nga Thiéou Cissé euh, nekkoon na ministre des collectivités territoriales locales mm. à l'époque anton mm. euh, bu mu ñëwee mu amoon benn prime bu ñu waroon fay les agents de santé mm. ñu ne ah agent santé yi daal ñu nekk agent santé yi nekk dans les structures étatiques rek ñoo ci am droit mais ñi ngi nekk dans dans les collectivités territoriales maanaam gox-goxaan yi ñooñu amuñu ci droit si ah, Sidy a porté combat bi moom kenn moom kenn kenn fekku ko ci moom ak équipe ñu porté combat bi mu koy xeex pendant des mois des mois pendant presque six mois dañ doon tenir ay réunion ba ay deux heures une heure du matin bureau Thiaw Cissé Doucouré ba finalement l'état a abdiqué ba ñu fay tey boo gisee képp kuy liggéey collectivité territoriale fii Sénégal nekk dans les structures de santé bu sa salaire yokkoo ngir yàlla ak bakkanu Sidya Ndiaye la moo moo ko xeex moo ci doon sonn loolu nag moo propulsé syndicat bi d'accord bi nga xam ne yeneen agent yi nekkoon si yeneen kii yëpp démissionné si syndicat yooyu ñëw dugg si moom. Mm-hmm. loolu moo indi tey suñu syndicat bi nag di màgg di màgg di màgg ñuy def tournée à travers le Sénégal. Mm. implanté wu dans toutes les collectivités territoriales du Sénégal. ok tey tey mun naa wax ne nous sommes le syndicat majoritaire dans les collectivités territoriales. Mm. parce que Sénégal SIDIA wër na Sénégal yëpp. beneen cas bu gën a am ab euh, kii importance dans l'histoire syndicale de Syria mhm. mooy quand l'état xam nga avec euh, les anciens euh, conseils régionaux mhm. bu état bi dissoudre les conseils régionaux Syria il a été le seul syndicaliste ici au Sénégal bu doon wër Sénégal man man ak moom man moom Samuel Diadio Moustapha Konté ñooñu ñaar yu ma lay citeel noonu mhm. ñooñu des des agents des ex-conseils régionaux de Dakar Syria a toujours dit non à l'acte trois de la décentralisation bu mu koy wax nit yi sax dañ ko doon assimiler teg ko ay politiciens mais Sidya daf ne woon moom gis-gis bu mu am acte trois bi dañ ko yàkkamti ah parce que defuñu benn étude d'impact environnemental dañu xëy rek jël commune de euh, de commune d'arrondissement yi érigé leen en commune de plein exercice. Hmm. te joxuñu leen moyens yoo xam ne dinañ mun a jël en charge salaire u travail yi fa nekk. parce que dañu def redéploiement bu ñu tuddee redéploiement géographique. Hmm. mooy maanaam da ngay nekk da ngay liggéey euh, Cambérène yow ñu ne bon xam nga ville de les villes la à l'époque ñoom ñoo doon fay salaire yi. par exemple tous les travailleurs euh, yi nga doon gis noonu yëpp ñu redéployé woon. Mm. ville de Dakar moo yoroon seen salaire. Mm-hmm. mais léegi avec euh, mm, l'acte 3 de la décentralisation mm-hmm. quand ils ont <clears throat> bu ñu érigé les communes d'arrondissement en communes de plein exercice mm-hmm. ñu ne léegi nag léegi communes yi yooyu yaa yore charge salariale mais loolu nag moo indi coow yi ñu nga tey euh, moo ngi koy wax si benn rek yàlla yàlla du yàlla euh, yàlla jox na tey Sidi a raison parce que sur toute la ligne il a raison au moment où je te am na ay communes yoo xam ne fii Sénégal mënuñu fayeku salaire. dañu am ay difficultés pour payer salaire la commune de Cambérène est tout près. ba état di ci wut solution. ba mais waaw xam nga gis nga le problème. Mm. c'est que xam nga lépp looy def ñun on n'est pas contre ñun euh, bañuñu que parce que c'est pas nous qui faisons les réformes si dee leen waxoon mm-hmm. daf leen ne man du ma def réforme mais na comme que dama nekk acteur dans les collectivités territoriales su problème amee ñun dañu am droit pour wax si suñu xalaat mm-hmm. mais déggulu leen kenn da ngeen dem rek dem mais tey histoire may na ko raison parce que lu mu doon wax yépp tey yàlla def na mu fe Syria mm-hmm. dafa et il a c'était gis nga xam nga ce qui est ce qui est mm-hmm. nekk na si àddunaam ba génn. mais doo wax ne pouvoir la àndal doo wax ne opposition la àndal doo wax il était équidistant xam nga lan sur toutes les questions qui interpellent notre pays daf ci day wax wàll su mm-hmm. état amee dëgg mu jox la dëgg mm-hmm. su nekkul si dëgg mu ne la am leen ku leen si dëgg moom noonu la meloon moo taxoon nag mu il forgeait le respect ñëpp ko respecté woon tous les produits chefs de ce pays d'ailleurs l'illustration la plus parfaite keroog boo demee euh, si levée du ngay gis na il a fait l'unanimité mhm. sur lui ñëpp a ko bëggoon Sidia nit koo xam ne la woon mais soxna si suñu la doon wax si Sidia mhm. euh, doo doo gis nga doomu aadama biy dox si àdduna gën xool Sidia Sidia àddunaam yëpp lu baax la doon def mhm. man man dama yàgg ànd ak moom depuis koo xam ne da ngay ànd ak moom depuis de trent sept ans xam nga yàgg na. waaw Sidia man je suis son aîné de deux ans mais ay morom lañu. parce que mhm. koo magante de deux ans yaa leen bokk génération. mais Sidia soxna si. Mhm. addunaam yëpp lu baax la doon def. Mhm. Sidia mënul woon gis nit bu sonn. boo amee problème ku am problème bu amul sax lu mu la def daf koy dem lebi ñëw jox la. pour la petite histoire damay koy nettali te loolu dama koy bëgg di nettali ñaari histoire yoo xam ne daf ma frappé si fii lool. gis mus nañu jógee suñu bureau suñu siège bu nekk à la Médina di ñibbisi mhm. il faisait très froid à di jaay gerte si seddaay bi mhm. mu ñëw ni taxaw muy xool femme bi mhm. femme baa ngi toog ni di buñ ko gis la femme sax grelotté mu wàcc ne ma balaa temps je descends une minute mu wàcc ma wàcc si oto bi ñun ñaar ñu ànd mu ñëw ne femme bi gerte ñaata la femme bi wax ko prix mu jënd il a pris dix mille francs mu ne femme bi am nga dem ñibbi parce que fii dafa sedd madame di dix mille francs di nga am kii bu femme bi ne ko ay sëriñ bi ñaanal ko ne ko man de lii rek dépense rek moom ma woon fii moo tax ma toog si seen hmm. mu ne voilà c'est ce que ah, loolu wax na wax na lu mel léegi donc euh, dafa da nga koy confirmer rek damay wax beneen sax bu gën a garaaw gis nga moom addunaam yëpp hmm. yëpp yëpp yëpp day gis nit di jaay moo xam ne kii lu muy jaay nii lu hmm. ci am dara mu jënd loobu yëpp maye ko ñëw toog même jën Medina boo demee ru ru rue Angle boo laajee famille fa nekk les mères de famille les pères de famille s'il y a lu am woo na ñëpp jënd leen ay jën lu nekk lay jënd leen ko hmm. may parce que boo waxee mu ne adduna bi mu ne ma bala tu sais la vie là ah, fii lu bon xeju fi hmm. parce que dafa gàtt c'était c'est ce qu'il disait tout le temps lu hmm. bon xeju fi dafa gàtt lépp loo mun a def lu baax rek def ko parce que toi nu nous ne sommes pas maîtres de notre destin mm à tout moment on peut quitter ce monde tout mais billah il avait préparé sa mort de Sidia mm. allahu akbar dafa mm. préparé dem mm-hmm. Sidia dafa doon def lu baax man mi su ma témoigné si Sidia rek xam naa lu may wax mm. parce que lan moo la gën a marqué si Sidia Ndiaye li ngeen ànd yëpp o non seulement sa générosité mais sa bonté de cœur boo ko meree rek ku ko meree rek mu jaaxle boo ko meree mu jaaxle dootul nelaw xam nga man ak moom xam nga ñaari nit bu ñuy ànd nee nañu ay kii dañuy dañuy jàppante des fois. Mm-hmm, mm-hmm. sur les questions man rek la doon woo. Mm-hmm. di ma ne su waxee dara ma ne ko moo tax ñëpp xam nañ loolu si man man ak moom. su waxee su ma d' accord ak man dama koy ne non non je ne suis pas d' parce que boo bëggee nit man dama ko bëggoon. su ma xool mu bëggoon ma nag ñu ñaar dañu bëggante woon. moo tax bañ na ko man l'homme de Mansakunda laa koy wooyee. Hmm. xam nga Mansakunda. Hmm. c'est son quartier natal de de foofu la juddoo. Hmm. il est né à Mansakunda. Mansakunda bu si soosee. mooy le quartier des rois. léegi nag man daf ma doon wooyee lom de Djikoroni. Djikoroni allo. oui ñu ngi lay dégg. di un quartier du Mali quoi de Bamako parce que moi mes parents viennent du Mali. Mhm. léegi nag loolu la ma doon tooñee quoi l'homme de Djikoroni ma ko les gens nag bu ñuy dégg wax l'homme de Mansakunda. Mhm. même sa famille ses enfants. xam ñëpp xam nañ ñoom sax dañuy toog bu eh, l'homme de Mansakunda ton ami t'appelle. Mhm. parce que Sidia c' pas un ami à moi. c' pas du moins un un, un ami à moi du moins. Mm. c'était pas un euh, un collègue parce que su fekkee ne syndicat rek moo ñu boole. Mm. kon bu dee syndicat jeex na. Mm-hmm. ñu yem foofu. Mm-hmm. mais syndicat Sidia yàlla moo ñu boole. Mm. mu nekkoon suma frère de sang dama ko jëloon bokk bokk moom mel ni ku bokk moom ndey ak bay. Mm-hmm. la preuve magam ñu mu bokkal ndey ak bay. bu mu génnee àdduna bu ñu demee son grand frère qui au Sacré-Cœur du du Ndiaye daf woo mu ne ma Cisco ma ne ko waaw mu ne ma ah ñun dañoo bokk ak Sidia. Hmm. mais yooyu la gën a bokkal parce que yow dañ la considéré comme membre de famille loo fi décidé fii si kër gi mooy am. Hmm. Sidia maa bu mu génnee àdduna maa ko defar maa def lépp maa ko denc. Hmm. Sidia may wax euh, mbokk mi ma ne leen gis ngeen man su ma jiitu woon Sidia. il fera la même chose sinon plus. parce que suma famille dinañ ko bàyyi lépp parce que Sidia mooy man man maay moom. bëgg nit nag. amul xaj te bëggul nag kuy wax waxu nit. Hmm. gis nga boo duggee biroom. Hmm. naan ko eh madame Fatia mu ne loon non non non il faut arrêter il faut des gens j'aime pas ça. Hmm. rek il faut pas parler des gens bëgguloon kuy jëw. kuy jëw boo ñëwee si wet di nga dellu parce que moom bëgguloon jëw kat de. jëw ay jëw. wala di wax ju mal. gis nga même dans les négociations yu ñu doon am les négociations syndicales. avec l'État. avec l'État. mais xoolal de respect qu'il donnait aux autorités moom dafa xamul luy état booy wax du la manqué respect te dina wax lu mu la wax si Sidia dina demandé gis nga ses droits daf ko doon réclamer mais doo ko gis mu jàll nit baat mm. wala mu wax la loo xam ne moo tax nag il forgeait le respect mm-hmm. xam nga moo tax man dégguma lu wala fi dañu ne mm. koo may cër mu may la cër dëgg la Sidia dafa doon maye cër mm-hmm. malgré tout lu nekk nag waxal nañ ko ko mm-hmm. lu nekk man mi man maa ko man dama tàngoon man man par nature dama tàng ñëpp xam nañ ma. Hmm. mais lu nekk bu buñ ko doon wax dara buñ ko tooñee sax bu ma buggee réagir mu woo ma buñ hmm. déggee ne si ko dafa bëgg réagir daf may woo balaa bien. Hmm. ne dit rien ne fait rien. laisse les gens parler mu ne mu ne man dama boot ay nit dama ku bokk boot. Euh, bu xaj la xaj mbaw la. mu ne ma loolu du dara mu ne ma ne ne kii pas mu ne moi je je ne garde aucune rancune en kii du mere kenn ko doon saaga di ko wax lu bon yëpp ñooñu la gën a mën a defal. Hmm. lu nekk wax nañ ko. way hmm. il s'est il est il embourgeoisé dafa dem euh, conseil économique social environnemental ah léegi dootul wax. Hmm. Sidia même étant malade malade. feebar di def dialyse jóge parce que ñëpp xam nañ ne insuffisance rénale moo ko daloon. dafa doon joge dialyse. suñu xuloo rek man ak moom loolu laa ko doon loolu moo doon doon moo doon boole. su mm. ñëwee di bëgg ko dem si manifestation ma ne ko bala rentre à la maison va te mm. reposer moo ko waxee rek mu ne ma <laughs> dafay mer xuloog man. oui baala wax ko léegi aussi te ñun lu ñu mun a mm-hmm. xam jalis euh, waaw ak effet secondaire yi waaw. loolu loolu bu ma ko waxee loolu xam nga lan la ma wax un jour. Mm. mu ne ma bala je t'ai dit à plusieurs fois de me dire de te reposer le jour où je vais reposer ce jour c'est le jour où tu au cimetière mm. c'est ce jour-là que je vais reposer mu ne laisse-moi mais après j'ai compris nag mm-hmm. ma xam ne ne vraiment loolu sax moo ko doon dundal parce que feebar bi yàgg na mais si des fois manifestation dañ doon jógee fii am na benn bés man ak moom ak Mballo ak une délégation on est parti jusqu'à Saint-Louis étant malade man dama mer jabar bi woo ma nee ma ah Cisco ne ko ah ma ne ko nag dan bañ de man su ma waxee ak moom mu xuloog man te ban dama bañ te xuloog moom ma ne ko dootuma ko dara moom kay bàyyi leen ko rek parce que lii moo dalal xelam bàyyi leen ko xoolal la dernière marche qu'on a tenue euh, avec l'intersyndicale euh, sur la place de l'obélisque hmm. mu ñëw jóge Dialis ah ñëw directement foofu travailleurs yi sax ñoo doon exiger pour que Sidia jël parole hmm. c'est pour te dire euh, que ce monsieur Euh, icône la woon dans le mouvement syndical fii Sénégal icône icône te ndeysaan nag ah, ak modeste hmm. du wone ne jàng na gis nga mun na toog ak ku nekk wax si ay ay ay séeréer ay ñooy xaritam hmm. defarkatu dàll yi ay jaaykatu jën yi hmm. ay jaaykatu fruits yi ñoom la doon toogal di kaf di ree te il était nag doon doon mais humour boo xam ne boo toogee si dee waxtaan da ngay ree ba sonn kaf ak ree la xamoon adduna nu nu noonu la mere mais il était calme aussi mm. c' était un homme très calme très pondéré mm. gis nga bu deful dara mm. boo ko gisee mi ngi togg yi di ne rek lay chantonné rek di woy noonu la doon dundee ko mooy Sidia kooku mooy Sidia gis nga ku taxaw ah man de xaw kañ laa koy fekki mais gëm naa ne yàlla gëm naa ah ah de am na lu mu wax koo xam ne yow durant toute ta si doomu aadama yi nga nekkoon. Mm. di dimbali nit ci seen soxla. di taxaw si seen soxla. liggéey liggéeykat Syria dafa doon jógee fii man daf ma doon woo ay damay tëdd sama kër. Mm. mu woo ma ne ma bala demain il faut qu'on parte en Casamance ma ne ko mu ne ouh y a des travailleurs qui sont à Marsassoum ils ont des difficultés il faut qu'on aille ma ne ko bala on a mu ne ma bala prépare ta valise way on part je viens de prendre. 5 heures mm. du matin mu ngi lay jàpp sama kër. buy voyager. du tàggoo day gis nga boo ko nee tey tey léegi. Mm. ah am na ay travailleurs yu nekk Kédougou mu ne ma balaa su munu dem mu ne ma balaa préparatoire tu pars à Kédougou te munu ma ko bañal dara. Mm. munu koon ko woon bañal dara lu ma wax ma def ko. Mm. parce que on était des amis on était des frères. sama nit loon de. alors lan nga gisoon ci moom 86 ba mu ñëwee ville de Dakar ba tax euh, demoo ci keneen nga ni ko moom na ñëw ngeen def syndicat lan nga gisoon ci moom boobu jamono. xam nga. bon tu sais <coughs> xam nga tamit euh, flair. Hmm. dafa baax. man dama gisoon ne <coughs> intellectuel la mu sañ ma mu ma raconté benn anecdote ñi ne ma bu muy def syndicat xam nga moom il était dans le cabinet du maire du Diop. Hmm. nga Mamadou Diop bu mu ko wooyee dégg naa Mamadou Diop mus na ko woo ne ko Sidia yow tu fais partie de mon cabinet il paraît que tu a créé un syndicat je voulais que tu laisses le syndicat mu ne Mamadou Diop bés boo bàyyee politique ma bàyyi syndicat. <laughs> noonu la tontu si Mamadou Diop. mu ne ko bés boo bàyyee politique ma bàyyi syndicat mu ne ko moi j'ai choisi d'être syndicaliste pour défendre les travailleurs donc euh, man je vais le faire te kooku kenn mënu ma ci dindi. Hmm. et pourtant Mamadou Diop c'était son ami c'était son mentor. mais moo ko indi de Dakar mais loolu ko tontu. Hmm. est-ce que avant ngeen di def syndicat bi da nga gisoon mu am benn taxawaay vis-à-vis de des travailleurs wala nit yi. non non dama doon gis si biir waxtaan bu ñu doon waxtaan. d'accord à chaque fois. j'ai vu que il était, c'était un homme épris de justice. Mm. Il n'aimait pas, il était attaché à la justice et à l'équité. Okay. yaa ngi dégg. il faut que gis rek boo waxee dara mu ne non moi je ne suis pas d' accord ces gens là ce qu'ils font là il faut pas ma ne ko mais toi créer un syndicat ah yaa ngi la wax dafa bëggoon bëggoon injustice injustice si boppam la bëggoon. si mm. gars yi pouvait pas supporter l' foo waxee ak moom boo tooñ lay bañ même ñu muy àndal ñu muy àndal ñu ñi nga xam ne ñoo ko gënoon jege ses amis see camarades boo nekkul si dëgg il a le courage de te dire que tu n'as pas raison ba pare nag su la waree défendre mu ñëw défendre la ñaata liggéeykat la ñu bëggoon dàq fii ay pikin ay kii moom mooy def xam nga pour te dire que gis nga ma wax la benn kii gis nga au conseil du dialogue social. Mhm. man foofu lay siéger moi je suis membre du haut conseil du dialogue social c'est moom moom ma fa moo ma désigné pour ma dem mm. représenter ko foofu gis nga nanga nga laaj euh, boo boo jëloon tey nga laaj la présidente du haut conseil du dialogue social mm. s'il y a dossier yu mu fa yóbbu pour ay conflit pour ñu régler ko au niveau du haut conseil kenn mënu ko compter mm. il faisait travailler le haut conseil du dialogue social d'ailleurs c'est le lieu de remercier gis nañu témoignage bu madame Innocence Ntap Ndiaye defal Sidia wax na ne Sidia conflit yu conflit bu am boo ko ko joxee mu réglé ko. parce que mm-hmm. nitu jàmm la woon. réglé il réglait les problèmes et puis yàlla mayoon na ko tamit dossier bu mu jëloon si loxoom rek dafay dafay dafay yegg. parce mm-hmm. que euh, nu mu ko nu mu doon euh, kii il il il une. une aisance euh, relationnelle boo xam ne moo ko doon permettre à chaque fois bu ne nekkee devant l'autorité mu régler d'ailleurs mm. le président du conseil économique social environnemental wax na ko mm. le ministre des collectivités territoriales muy def témoignage am wax nañ ko mm-hmm. parce que dafa am jàmm ak le directeur du centre national de la fonction publique même keroog nee na ma démb rek si guddi la ma doon woo mm-hmm. di ma wax les relations qu'il avait avec Sidia ak ak nu mu meloon mm-hmm. ak nu mu nu mu amoon cër doomu aadama voilà euh, ñu jeexal euh, peut-être ak anecdote benn boo am ci moom benn euh, xew-xew événement boo xam ni partagé nga ko ak Sidia te tey mu nekk peut-être li la gën a marqué si seen ànd. tu sais benn bés dañu waroon dem Ziguinchor il me dit Bala il faut que tu te lèves tôt il faut venir à l'hôtel de ville comme ça ñu continuer nii dem mais gis nga jour boobu sedd bu metti metti metti moo am Dakar. Mm. keroog seddaay bu metti man keroog dama tegle mu nduróog xaw ma sax lu ma mel mm-hmm. may dem ma ñëw fekk ko hôtel de ville mu nekk si oto bi dafa taaloon sax moom si boppam kii bi comment on appelle ça encore clim kii waaw non non pas clim ah. pour se réchauffer là d'accord d'accord voilà léegi bu ma duggee moo ñëw rek ubbi bunte bi dugg mu ne ma mais balaa tu as vu ah il fait froid ma ne ko il fait très froid ma ne ko ma ne ko je suis en train de grelotter. bu may tooñ ma tu es bambara tu es Tamba. je mm. connais pas la fraîcheur moi mm. j'étais à Paris. je mm. connais la fraîcheur. di di ma tooñ bi yàlla def rek benn xale talibé di ñëw xale talibé. l'enfant avait porté des des des des. un t-shirt complètement déchiqueté xale bi bu muy taxaw si kii vitre bi mi ngi trembloté si di jooy si oto bi euh. ubbi ne ma bala ouvre la porte de derrière mu ubbi mu ne mu ne xale bi dugal l'enfant est rentré toog mu ne xale bi noo tudd mu ne ko Ousseynou mu ne ko foo dëkk xale bi ne ko waagu ñaay je je n'oublie jamais le prénom de l'enfant mm. si dee di jooy mu ne ma bala il va falloir que qu'on attende maintenant que les banques s'ouvrent comme ça je vais essayer de retirer de l'argent à la BICIS après ñi dem Sandaga on va acheter des des des effets vestimentaires à cet enfant là mm. ma ne am ah mu ne d' accord xam nga kuy dem Ziguinchor da ngay teel a dem. Mhm. à l' époque avec les tracasseries xam amuloon pont amuloon dara. Mhm. bon ma ne ko ok di toog ba huit heures huit heures et demie comme ça banque yi kii ñu dem la BICIS il a retiré de l' argent on est mhm. parti avec l' enfant. ok ñu dem Sandaga mu dem dugg ubbi benn ko ay jaquette jëndal ko ay pantalon ay chemise alors. au retour bu ñu demee ba déposer xale bi. Hmm. mu dëkk y a une dame qui est sortie ñu bàyyi xale bi. Hmm. on est a continué notre route dem. bu ñu eggee euh, bu ñu eggee si yoon bi muy jooy quoi mu ne ma hmm. man tu sais quand j'ai vu cet enfant là c' est comme si j'avais Mous vu Moustapha il parle de son fils. de seul fils d' ailleurs il a un garçon. mu ne je je pensais à Moustapha ma ne mu ne dafa mel ni Moustapha moo taxaw. amul amul euh, amul yëre yu mu sol nekk si seddaay bi mhm. mu ne ma j'ai pensé à mon fils mhm. pour te dire voilà l'homme euh, gis nga euh, yu gën a yu gën a am na yeneen yoo xam ne sax buñ ñu fi toogee di ko nettali sax doo mhm. xam pour te dire que l'homme était d'une grande dimension morale bëgg nit bàyyi addunam lépp nit lu mu am defal na ko doomu aadama yi toog lu mu am gis nga man dama lay wax dara. Mhm. des fois dañ may damay yore xaalis boo xam ne ki lui est destiné dama ko doon denc. Mhm. damay ñëw rek garder ko suma armoire. ma toog parce que dama xam ne boo ko ko joxee. da koy moom soxla yu mu si war a faj ko faj. Mhm. te moom kenn ëpp ko soxla. mais damay toog ba mu toog ne ma balaa. mais où est-ce que je trouver de l'argent ma ne ko j'ai gardé de l'argent pourquoi mu ne ma ah? ma ne ko waaw mu ne ma ne ko waaw ma génnee cinq cent mille wala kii yoo xam ne ay nit ñoo ma koy jox. ma ne ko balaa am mu ne mu ne ma pourquoi tu ne m'as pas donné ma ne ko je te connais. Hmm. tu a des difficultés. mais des fois il faut penser mais kenn mënu ci dara. Hmm. yàlla noonu la ko. noonu la mel. Hmm. xolam moo rafet. yàlla na ko yàlla fay loolu yëpp. amiin yàlla na ko yàlla fay yërëm ko eh. xaaree ko àjjana. amiin vraiment découvrir nañu facette bu ñu xamul woon ci Sidya Ndiaye parce que nit yi effectivement syndicaliste bu tàng bi la ñu xam mën a kaas mën a mën a ñaxtu. voilà moo gën a sedd moo gën a mm. gaaw a jooy bi aussi da ngay confirmer Mballo Dia Thiam parce que junj na ko te wolof nee na lu ñëpp waxee dëgg parce que yëgoowu leen bokk leen fi ngeen nekk su ma leen woowee yéen ñaar euh, ngeen wax euh, bokk li ngeen wax ci Sidya Ndiaye donc mun nañu jàpp ne dëgg la ay nit yu yàgg ak moom ngeen également. dégguloo keroog dama ko wax nga baal ma de doguma la de. Mm-hmm. Mm-hmm. dama ko wax euh, si levée du corps bi. Mm-hmm. ma ne ko balaa je m'adresse directement à toi. ma koy tooñ ma ne ko l'homme de Mansakunda. ma ne ko yow dans le secret de ton bureau tu me disais ah balaa nu reproche ma naan la yow non non yow si deewaguloo léegi. parce que yow tu es utile pour ta société. tu tu ton pays. et tu t'es battu pour les autres. tu as même sacrifié ta famille pour les autres. mais ma ko tey nag. man de sa xarit nee naa la demal reposer wu parce que mm. tey mun naa gëm ne boo demee tëdd di nga noppalu mm. parce que tu le mérites yu mm. toute ta vie da nga da nga da ko xeexal doomu aadama da nga def da ngay defal nit lu baax si de amuloon noonu ku ko bëggoon def noonu rek yaa ko bëggoon def noonu mais si dee noonu awul ak kenn ñëpp la amal affaire ñëpp la amal jàmm ñëpp la amal jàmm bëggoon jàmm di ko wax di ko dox moo tax nag euh, vraiment euh, man loolu laa wax ma ne leen Sidia Sénégal moo moo ñàkk. mu mm-hmm. wax naa ko jabaram ma ne ko Penda mu ne waaw. ma ne ko yow ñàkkuloo sa doom yi ñàkkuñu ma ne ko man mii di xaritam ñàkkuma ñun ñii xaritam ñàkkuñu. Mm-hmm. ma ne ko Sénégal moo ñàkk Sidia Ndiaye. Mm-hmm. parce que c'était un grand homme un homme d'une modestie d'une humilité. si nga am na benn bés sax kenn ñëw di wax oui Sidia il a fait tel diplôme tel diplôme daf ko arrêté woo ko mu ñëw mu ne ko nga je ne veux pas. ngay wax suma parcours. bëgguma hmm. yooyu mu ne parce que c'est frustrant. mu ne ma gis nga loolu la le tigre n'a pas besoin de prouver sa tigritude. waaw mu ne c'est pas la peine jaru ko. Hmm. Hmm. mu ne pourquoi ngay wax nit yi dama jàng. boo man man mu ne ma dama bëgg chaque fois bu ñu nekkee kii man ma mettre à la ma ma rabaissé wu comme ñëpp ma nekk au même niveau que les gens. et Sidia noonu lay mel. bu ñu demee si ay dëkk xam nga am na dama yàlla bal am na ay patron tey yoo xam ne syndicat. Mhm. bu ñu nekkee dañuy beru di lekk moom bu ñëwee. bool ñoom ñëpp ñooy bokkal ak ndab. Mhm. ñoo ñooy defandoo lépp. lépp lu ñuy def ñoo koy defandoo am mhm. sax. bureau du tëju day ubbi ku nekk day dugg ku nekk day génn. xamuloon yooyu sax. moom ay problème préséance yooyu. moom xam nga ah mais c'est normal aussi xam nga boo juddoo dafa am foo xam ne boo fa bokkee. am na yoo xam ne doo ko xam. s'il est de la Casamance. Mm-hmm. il est né dans une grande famille. Mm-hmm. trente familles ci yar bi la ci yar bi la. ci yar bi la. tout à fait moo tax bu mu loolu la indi effectivement. mu ne la balaa gëmoon aussi ne àdduna dafa gàtt ba yenn yi xaju fii. loolu yëpp bu dajee effectivement si lii noonu la munoon a mel. jërëjëf Moussa Cissokho jërëjëf jërëjëf ñu ngi lay gërëm bu baax a baax vraiment amoon nañu mbégte lool taataan say seede ci Sidya Ndiaye ginnaaw euh, Mballo Dia Thiam mi nga xam ne yéen euh, bokkoon di ànd ak moom ci lutte syndicale bi mais aussi ànd ak moom ci àddina bi nga ma ndax mm. euh, ma ne est-ce que dama dama fàtte lu am importance. aussi mm. nga baal ma rek. waaw parce que tamit xam nga nit ki bu mu feebaree. Mm-hmm. dafa amoon ñoo xam ne dañ ko jàppale. Mm. te bëggoon na su fekkee ne c'est possible. nga may wax na ci président de la république justement ak taxawaay bi mu ci am. président de la république. Mm-hmm. taxawaay bu rafet la ci am. tout à fait. ba pare waxuma la loolu le le président de l'Assemblée nationale. Mm. l'ancien président Moustapha Niasse. et le haut conseil du dialogue social madame mm. Innocence Ntap Ndiaye. yaa ngi dégg le directeur général du COUD hmm. le SATUS le syndicat autonome des travailleurs des universités hmm. ak ñu bare bare bare bare bare hmm. ñoo xam ne dañu jàppale mais ñooñu lay cité ah Mahmoud Saleh ñoom ñëpp dañu impliqué woon si feebaru Syria le ministre du travail ah mais vraiment ñooñu dañ leen di remercier parce que ku gërëmul nit doo gërëm yàlla. dëgg la vraiment Syria ñooñu daal vraiment ñu ngi leen di sant di leen gërëm. Mhm. gis nañ seen taxawaay mhm. yàlla mi am fay yàlla na leen yàlla fay. amiin amiin le maire le maire de la ville de Dakar. Mhm. Barthélémy Diaz. si dëj bi moo def lépp. lépp la def. moo dem le premier jour moo fa indi nag. indi fay lépp lépp lu ñu waroon def si dëj bi moo ko def. ba pare jàppale Sidia ne ko nag. Sidia dem na mais man maa ngi fi Barthélémy nee nag. njabootu Sidia moom ville de Dakar dina ci teg loxoom. Mm-hmm. lépp lu mu mun a am pour mm-hmm. dimbali njabootam. Mm-hmm. moom Barthélemy dina si jàpp. effectivement amel nañ ko Sidia <laughs> Sénégal yorel na loolu Sidia donc c'est tout à fait normal. vraiment ça je personnellement à préciser cela. lu am solo la ko. pour Sénégal xam ne ne. Mm-hmm. amoon na ah, Syria de feebar na mais wéetuloon si feebaram. Mm-hmm. parce que am na ñu ko jàppale. am na solo jërëjëf Moussa Cissokho ñu ngi lay gërëm ba toppoon ci Sidiya Ndiaye euh, ci syndicat waaye itam euh, ñu doon dalal Mballo Dia Thiam sànq. Euh, di leen gërëm di ñaanalaat Sidiya Ndiaye yàlla yërëm ko xare ko àjjana fi mu jëm mu fekk fa jàmm kese. ak i xéewal yàlla teg loxo ci njaboot gi mu fi bàyyi. ñuy gërëm itam ñu ñu doon déglu ci réew mi FM di leen dig daje beneen dimanche incha allah émission bi mun ngeen ko teewluwaat ci suñu chaîne YouTube Rewmi TV officiel Fatou la woon ci kàddu gi jaaw jàlloo ci jàppandal gi ñu yendoog jàmm